voilà tey nag euh, actualité bi euh, xam ngeen ko euh, ci réew mi ak bitim réew tey nag dinañ dem ba ca bitim réew door a ñëwaat ci sunu réew loo xam ne moom faw rek ñu dollante ci bu baax a baax kenn ku ci nekk rek lan mooy sa xalaat ci li ngeen di gis benn audio ak benn photo wala benn vidéo boo xam ni yéen a ngi koy dégg fële na la ca Arabie Saoudi voilà Arabie Saoudi nag yaakaar naa ni. dëkk bu ñuy wax Riyad Riyad ci Arabie Saoudite xam nga dëkk naar yi moom ay Riyad moom turu Riyad moom bari na fa dëkk bu ñuy wax Riyad dëkk boobu noonu nag dafa mel ni euh, kii nga xam ne moo di seen roi bi di Ban Salman Mohammed Ban Salman voilà dafa mel ni dafa daganal euh, sàngara foofu noonu ñu ko fay jaay voilà dégg naa nag ñenn ñi di ko moderniser naan voilà. non ku ko bëgg ci sa application bi ngay dem commande affaire yooyu ñu indi la ko fi nga nekk fi nga dal voilà parce que bu nee Riyad googu noonu tey mooy quartier bi nga xam ne nii diplomate yëpp foofu lañ nekk lan mooy diplomate. voilà léegi nag euh, ba ci des mooy ndax contrôle ba nga xam ne war nañ ko mën a contrôler loolu noonu est-ce que matukaay yooyu dinañ ko am xëy na mën naa am ni am co wala duñ ko am waaye fi nga xam ne foofu lañ bëgg waxee mooy maanaam borom xam-xam yi doon nañ ko wax te dawuñu dañ benn yoon di ko wax. maanaam naar yi mujj yi dañoo wayadi maanaam naar yi nga xam dañoo mujj feeñ ci jamono ngeen baal ma dañoo wayadi te ku leen topp wayadi parce que ñoom ci seen jëmmi bopp ku nekkul ci dëkku naar yi nag doo xam naar yi mujj yi laa wax dañoo wayadi te ku leen topp wayadi parce que complexe dañ koo am li tax ñu am ko mooy dañoo complexe tubaab yi. occidentaux yi la ñu complexe loolay dëgg loolu borom xam-xam yi waxtaan nañ ci waxati ku waxati ko te loolay dëgg ndax ku ku ku ne la woon Madina ci boppam danañ dem ba maanaam jigéen dafa dawal oto sax wala maanaam danañ dem ba maanaam dañ fay daganal sàngara ak yooyu wax dëgg fa yàlla danga ko da nga ko weddi waaye nag comme yenent bi demoon na ba waxoon ni maanaam kaaba gi sax dinañ ko toj kaaba gi dinañ ko toj kan loolu mooy chaque jour bis bu yàlla sàkk rek ñu ngi teg ay jéego ñu ngi teg ay jéego voilà c'est parce que lan la mooy c'est euh, parce que lan la mooy euh, naar yi nga xam dañoo mujjee ñëw ci jamono dañoo complexe te dañoo bëgg lu rafet te dañoo bëgg àdduna te dañoo bëgg poñetu àdduna looloo tax lu ñu dugg rek seen bakkan leen ci dugal ndax boo xoolee tey jii yu baree baree bari amul woon Madina de waaye léegi loolu yëpp mën fay am grâce kan Mohamed Salman Salman moo fa dugal yooyu yëpp seen droit boobu noonu vraiment vraiment wax dëgg yàlla euh, lii moom àdduna bi yëpp képp koo xam ne ab jullit nga danga ko war a naqarlu naam naar yi moom wax dëgg yàlla àdduna jaay na leen te àdduna di leen yi gën a jaay ndax ñu ngi jëm ci maare day taali musiba moom moo xam ne ne xamuñu ko ndax boo xoolee léegi Arabie Saoudi daanaka mën naa ne chauffeur yëpp léegi foofu la ñuy xantuwoo pour dem fa maanaam ndax lan ndax seen alal ju bari ji ñu yor seen dëkk yi duñ ko tabaxee maanaam boo demee seen dëkk yooyu da nga xam ñii moom pour léegi dañoo ñëw pour noos ci àdduna moom waaw dañoo ñëw pour dund àdduna waaye nag loolu baax na de waaye waroon nañoo fexe ba maanaam yii nga xam ne daanaka seen maam yi nangu woon ko fi woon ñu jéem a euh, doxal loolu ba keroog ñuy fekk seen maam ya waaye bu ñu demee ba occidentaux yi nax leen nag bañ dem naan bañ naan dañuy dugal sàngara foofu noonu ngir du ko doole léegi nag kon yeneen dëkk yi saful di wax moo tax ay mag laa lay wax ñoo leen ko gën ay mag ñoo leen ko gën ñoo leen gën le ay mag yi mujj waaw ay mag yi mujj moom naar yi ñoo leen ko gën le parce que yaakaar naa ne sàkk suur bés ba yàlla sàkk boo demee ci réewu naar yi da ngay gis naar bu taxaw di saw te magum jëmm lay doon ngeen baal ci kàddu taxaw jodd te magum jëmm lay doon te doo ko gis suñ dëkk bii maara day taal doo ko gis day gis ma naar bu màggat boo xam ne la dee rek ko desee mu seex ab sigaretam mégoom voilà nga gis naar boo xam ni bu samedi ak dimanche day naan ba ni tat waaw ba tubay ji lang voilà kon naar yi ñoo wayadi bëgg loo wayadi loo naar di ku leen topp ci seen wayadi googu dana la yóbbu seen wayadi dañoo wayadi ba pare complexe waaw di nañ complexe nañ parce que lu ñu gis rek daneen ko copier ci occidentaux yi ngir di ragal ku leen ŋàññi wala di ragal ku leen reetaan wala xam nga voilà yooyu la ñuy daw ndax xam nga tey jii Arabie ñu ngi wax ne ñu ngi fay tabax benn xam ma xam naa danañ ci gën a bu baax baax a baax indiwaat leen leen ko bu baax incha allah rabbi waaye daal en tout cas daal Mohamed Salman daal li ñu wax moom bu fekkee loolu moo am foofu noonu ci Arabie Saoudite képp kuy jullit moom war nga ko naqarul ndax Arabie Saoudite ci boppam dëkk la boo xam ne ni bu njëkk jullit yi dañ fa daan dem voilà am na ci ñoo xam ne daan nañ fa dem di umra ji am na naar yoo xam ne daan nañ yëkkati xëy na ay asaka di ko joxe mais est-ce que naar yi léegi asaka yooyu ni ñu koy joxe léegi asaka yee naroon a joxe ndax duñ ko def ci yi joueurs commencé di jënd seen forme ñu commencé dugg forme yi leen dugg àdduna ah man de sama xalaat daal xam naa ni moom laa leen wax te li ma xam tamit moom laa li ma gëstu tamit moom laa indi nii pour partager ko yéen yéen nu ngeen gisee Mohamed Salman mii nga xam ni daa nekk fële na le ci Arabie Saoudite di buur ba daganal fa sàngara ci dëkk bu ñu wax Riyad muy dëkk boo xam ne diplomate yaa fa ëpp ñuy wax ni dañ koy moderniser xaw ma dañ koy dax ci ay application yooyu noonu ko ko bëgg commande ci biir application bi ñu indil la ko loolu yëpp sa faux daanaka mën naa ne dana application moom mën nga ciy jaay mais application faaw mu am barab boo xam ne ni dana xam ne fii mooy seen sees waaw moom dëgg la application yi fii ñu toll ni ci àdduna bi application modernisée am na di jaay ci euh, digital yi ba pare di jaay foo xam ne barab boo xam ne foofu la seen sees nekk day am mais xanaa doo demee lépp xanaa kon am loolu mënul nekk lii daal moom wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne vraiment dama ne woon moom mënuma cee ñàkk a bañ a wax wax dëgg yàlla vraiment guleet voilà fi mu toll nag liñ naan moom wax dëgg yàlla loxo demati na gémmañ voilà liñ naan nag boo guddee fan lu ne da nga dégg waaye boo guddee fan lu ne da nga ko waaye wax dëgg yàlla Salman mii moom fa jëm ak ñun kenn xamul voilà kay boo nag wax dëgg yàlla jël say matukaay te xam ne àdduna bi moom yaakaar naa borom xam-xam yi lañ waxoon rek aaxiru samaan lu ñu gën a jëm ci kanam rek. nit ñi di gën a dummooyu lu baax di jëm ci lu bon rek voilà loolu moom mag ñi wax nañ ko lu ñu gën a dëgmal aaxiru lu ñu gën a jëm ci kanam àdduna lu muy gën di dem nit ñi di gën di bëgg lu bon di gën a euh, dumooyu lu baax loolu moom juru sax ñoo mag ñi wax nañ ko waxati ko voilà kon daal wax dëgg yàlla lii nekkul nekkoon na li nga xam ne dañ ko doon indi euh, buñ ci amaatee leneen voilà wala danañ danañ ci ñëwaat bu soobee yàlla voilà voilà kon nag yaakaar naa ne lii nekkoon li nga xam ne ni euh, mooy seen actualité euh, ñu jëmale woon ko foofu ci bitim réew ci euh, ban sax gis nañ sax Oustaz Sarr macha allah kooku moom vraiment na fi yàgg jàmbaar la dëgg sax waaw Oustaz Makhtar Sarr vraiment moom jàmbaar la ko vraiment ku topp aaxuru samaanam boobu seenam boobu ñu naan aaxuru samaan site internet am boobu yàgg nay dénoncé yu mel nii nag jëmale ko ci ci naar yi foofu wallaay yàgg na koy dénoncé ku ko yàgg topp laa wax de yàgg nay dénoncé lu mel nii jàmbaar dëgg la voilà waaye nag gis nga ñu baax ñi moom dañuy dem ba dañuy néew dañuy néew doon kuréel gu ndaw waaye yàllaay ànd ak ñoom waaw lu baax danañ dem ñu baax ñi laa wax dem ba doon kuréel gu ndaw nga xam mën nga leen a wañ nga xam ni maanaam wax dëgg yàlla euh, yàlla rek ay ànd ak ñoom ci seen pas-pas yëpp waaye nit ñu bari dañ leen di du mooy lu ñu wax duñ leen déglu maanaam mooy li xew léegi ci àdduna bi rek waaye xam naa ne daal incha allah leen ci gën voilà indi laatal ay ay ay ay gën cee waxtaan ak yéen euh, waxtaan yi sax yu baree bare bari daanaka mën naa ne duma koy koy waxtaanee fii ci 94 Sénégal lu dul actualité rek euh, lu jëm ci wàllu politique rek yooyu nga xam ne daanaka wala nit ñi dañ ko soxla waaye waxtaan yi dëgg dëgg ku ko soxla dëgg dëgg danga may topp fële na la ca Fall TikTok voilà sunu TikTok bi bu ko defee waxtaan yëpp danga ko mën a am foofu noonu. voilà dollante àdduna àdduna fi mu toll ak jëm waaye fi nit ñi jëm ak nit ñi liñ bëgg voilà loolu yëpp ku ñëw ci sunu fan TikTok boobu da nga da nga ko fa fekk 94 Walf Sénégal daal lii la leen indiloon tey